lay jox sa way gis la tay ci bes bi nga xamne besu tis la besu naxar la ndax te ki di Ousmane Tanor Dien kenn du ko nattable ci liggéeyam ci walu politique ci walu développement Sénégal bañ ko ragné ba tay ci boru Senghor ak ligue tay lan mo ci sa xalat lan la soxal yek tay ci bes bi ci aéroport Blaise Diagne. jërëjëf xana rek xam nga sunu borom lam def rek am njàng la ndax da waxoon ci alcorane li misli hasa fal al'amilun ku gis lu melni bul yem ci nettali da ngay jéem a def liñ ne moo may kii lim am li misli haada fal yaamal aamiluun production yëpp am nañ bind tey bind bi mooy ndekete ñàkk a wax ca kaw ñàkk a yuuxu ñàkk a wax wax ju baaxut ñàkk a saaga du tax am li nga war a am su fekkee war nga ko am mm-hmm. Ousmane Tanor ñi ko xam xamuñu ko ci xëccoo wala yuuxoog dóorantey dënn xamuñu ko ci kàddu gu ñaaw liñ ko xamal mooy boo mosaan ñëw ne ko diw nangam dala ci tegal ah bon nga ne waaw mu ne dégg naa ko mu jeex kàddu googa fa nga ko ko waxoon foofa lay yem fa la ko gas fa la koy suul léegi nag looloo tax nga gis mbooloo mu toll nii ñëw gàttandu ko gunge ko war ku yóbbu ci kërug mu jëm kon loolu dar leçon la ci politiciens yépp mo xam ci opposition nga nek mo xam ci pouvoir nga nek jërëjëf si laaj bu am solo alhamdullah amna am na bo xamne boko jëlon ne boo ko yobbal ki nga xamne mom Ousmane Tanor Dieng ci ñaari kaddu rek nak nga koy teunké wa ni mo koy teunké rek moy su dékki won lum defon dana ko yok su dékki dekkiwaatun ñew xol mbolo mi ko gungé xol ni ko gungé ak ñi and ak mom kon lum doon def rek dana ko yok lo rek la ko yobante yalla nako yalla yàlla aljanna yéegal ko ca jàntu firdawsi euh, maa siddiqiina te itam yàlla na suuf sedd ci kawam yàlla na yàlla may xool bu muñ te yàlla na àpp sore jërëjëf